ni trois questions yëpp presque daa mel ni benn la maanaam ñun si suñuy wax dañoo wax ne ñun bokkuñu si wàllum politique doxuñu si ba pare ñu ñëwaat ci ginnaaw ne dañuy jël tànn nit koo xam ne moo gën parce qu'on a di pour suñu commune donc bu ñu waxee loolu ñu dañoo xool suñu biir ba ba xool ni am na maanaam bu ñu bëggee dara pour suñu gox ñu koy doxal ce sont les dirigeants duñ ñëwee bu ñëwee dirigeant au plateau dañ naan mairie bi la parce que avant nguur gi moom lañ fi gis donc léegi nak buñu xolé ñu xamni élection wu mairie mo ngi ñew donc yoon la ñun ñu bok suñuy saytu kan moy tok ci suñu maire gis nañ ni euh daawoon euh, ñun daaw ñu won sax bok ci ñi voter parce que nous sommes une génération une génération boo xam maximum maximum c'est de 2000 la commencé maximum maximum c'est 97 daaw ñu woon bokk sax ñi doon voter donc ñu ne comme jot na ñu wara dem voter ji. bi baa dañuy gëstu si ñi nga xam ne ñoom ñoo indi pour bu ko doon maire plateau ñi nga xam ne maanaam projet bi ñu teg yemm na te gis nañ ni baax na pour suñu gox ñu jël ko si lañ waxee loolu. wax nañ fi aussi si wàllum le DG euh, maanaam muy Salif Keita donc ñun bañ jugee créer ñëpp xam nañ ne ndaw bu jugee créer dara da ngay soxla ñu la jàppale pour nga dem jug nañ fëgg fu ne commencé ñu daanu jugaat pour mun a taxaw mënul taxaw. yàlla def na ni gis nañ ko moom am na maanaam si wàllum formation bi ñu naan ANPEJ bi wax naa ko sa sànq koy wax ci wolof yàlla ak moom la ba ñu mën a am lien bu ñu yóbbu ba ANPEJ pour ñu doxal ko mais loolu tamit taxul woon sax parce que moom moom sax wax nañ ko ba ñu toogam ñu ne ko ñun ñu sommes apolitique bokkuñu si benn kiwu kii mu nangul ñu ko mais bañ demee ba ci biir gis nañ ni moom moo taxaw mu ne dafa poser candidature am pour élection maire ak ñeneen on peut en citer donc, si nous disons, nous avons projet, nous avons pour l'instant, projet, plus important.